may nuyu bu baax a baax a baax waa Leewtoo production euh, ñoom ñi nga xamante ni euh, ci njiital ba Pape calis moo tëgg combat boobu dox ci diggante Tapha ak booy Niang may nuyu euh, mbay Babacar bu baax ak soxna Ndeye Mbacke combat boobu noo ko gisee. waaw combat bu neex la combat bu rus ku xam Boy Niang xam ni bu jugee ngel gi lépp jug. Hmm. bu jugee Pikine jug ku xam Tapha Tine xam ne bu jugee boole gépp jug. Tapha Tine jóge si victoire Boy Niang jóge si défaite. Hmm. mais fi ñu toll nii nii nii nii nii ah gëm naan Pikine dinañ. Boy Niang ci victoire la jóge ah la jóge ah, de moo ko daan. la ko daan. Hmm. Ah, la dëgër de moo ko daan mais Boy Niang am naa ñott bu rafet dina am tam si kaw Tapha waaw njort la wala loo gis la. réglage man moom loo wax dama naa loo gis la parce que xam naa ne bu dee analyse euh, sama papa euh, ku ci mel ne père Maxime Bargane euh, sama père Birahim Ndiaye ñeneen ñooñu doy nañ ma ci analyse làmb yow boo nee jàpp naa ni day mel ni dangay ngay dama damaa bëgg nga wax ma li nga xamante ni moom lu mbëri di dund muy baat. bu ndaw bu ndaw. pour booy ñaa am ndam si kaw Tapha sarax bu ndaw bu tuuti rek moom ndam. sarax boobu yow danga koo xam. waaw. bu ko defee force day daal. fala bu da ndam bu tuuti la nag matul sax six mille. su ko calculé lépp matul six mille franc. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum adduna Pape maa leen di wax ne leen ah rek mën nga fex leeral koo xam ne si bëgg a seeti sa sa yaram.